mais d'une bonne volonté. Mm. et espérons qu'on va être accompagné ci dynamique boobu ñu nekk. alors am na loo xam ne ñu ngi koy wax di ko ruumandaat en fait du ruumandaat sax parce que c'est le premier ministre lui-même qui l'a affirmé mooy ay topp yoo xam ne nar nañ ko def ñu ñu jàpp ne dañu duubal alalu askan bi euh, justice euh, mooy gérer directement parce que gisoon nañ fi euh, épisode du traque des biens mal acquis mu juróon coow li ñu naan politisation de la justice ñu ne feeñ na ci ci yooyu ak ci yeneen dossier alors yii ñuy wax ne dinañu ko ubbi aussi comme ay poursuites probablement naka la ñu ko war a doxalee pour yow ba duñ ci gis politisation de la justice et cette politisation aussi si existe naka la ñu war a def tey ba ba faj ko fan la gën a fëse fan la gën a méttee jamono ji bon politisation bi malheureusement dafa am loo xam ne hmm, benn lien benn cordon ombilical bu ënd existe entre en tout cas entre la justice en fait le, le ministère public ak euh, l'exécutif tey le garde des Sceaux peut donner des ordres de poursuite à un procureur de la République. maanaam ministre de la justice mun na ne procureur toppal ma kii. si ok maanaam li mu mënul mooy peut-être ordre bañal topp. Hmm. loolu mën na ko donc yooyu yëpp bu ay c'est des révisions yoo xam ne bu ñu ko defoon jàpp nañ ne que justice bi. loolu kon assise yi def yoo xam ne gars yi nañ ko ci loolu. allant dans le sens de libérer le procureur effectivement gën ko gën ko libérer mais aussi bu ñu ko gënee libérer aussi dañu bëgg aussi moom tamit pouvoir yu bari yu mu ñu ñu wutal ko ñu ñu challenge ko. mu am ay garde fou mu am ay garde fou moo tax ñu ah. ñu bëgg ñu instaurer euh, le juge des de la détention et des libertés maanaam procureur de la République mën na topp mais in fine dafa am un juge ku wax juge nag wax koo xam ne. Hmm. donc il est inamovible indépendant moom mu décider. sur la nécessité. de de mettre en détention la personne ou pas. Hmm. loolu aussi bokk nañu je pense que réforme. phase boo xam ne est a bëri ci. mais ñëpp ci d'accord pratiquement loolu. d'accord d'accord assisaar d'accord ne il faut impérativement qu'il y ait un juge des libertés de la détention parce que quand même euh, fàtte xaju fii li ñu dund récemment. am na ci yenn yoo xam ne euh, dafa mel ni benn genre traque quoi. Mm-hmm. donc yooyu nag la ñuy bañ. jël ay autorité jox leen pouvoir. ñuy falu tey d'ailleurs ci ci ay victimes. mais la plupart ce sont des victimes ci loolu man je suis victime de ça am na samay morom yeneen yoo xam ne ils sont victimes de hmm. ça. premier ministre président mais justement ils sont nag ñoom vraiment ils sont mieux placés pour <laughs> savoir. pour xam ne fan la ñu war a mën a jooy en tout cas parce que ils en sont ils en ont hmm. donc loolu moom je pense que euh, war nañ ci gën a dem pour que justice moom boppam. Euh, bon bien entendu sous le sous le contrôle le gardien de la constitution ki nga xam ne mooy la clé de voûte des institutions. Mm. bon loolu bu ko defee aussi pouvoir bu ci nekk di def sa rôle comme il le faut et puis après les les sénégalais vont apprécier. ok ouais. alors euh, track yi ñuy wax ne dinañ ko amal naka lañu ko war a doxalee euh, pour yow ba déru justice du ci gàkk du ne c'est encore une justice manipulée wala une justice aux ordres. bon xam nga les tracts le plus souvent les rapports les corps de contrôle ñoo koy def. ok IGE moo koy def soit OFNAC def ko wala peut-être au niveau de du en fait du en fait la cour des comptes bu ñu ñëwee nag def seen i rapport ba pare ba jébbal ko aussi le maître des poursuites mais naturellement le maître des poursuites dafa war a lancer des poursuites. Hmm. lancer des poursuites ça ne veut pas dire forcément que ne nit ki rek d'emblée rek dafa war nekk en détention lancer des poursuites mooy ouvrir une enquête. pour xool ndax lañ koy toppee lu mu war a def la ak lu mu mot a def. man ñun mhm. je pense que loolu ñëpp dañ koy rafetlu parce que quand dëkk bu ndóol bu mel ni Sénégal. Mhm. tey boo gisee euh, ñu bari jàppee la mu politique mu jaral leen yenn yi parce que dañu jàpp ne c'est un moyen d'ascension sociale. ñu dénk la alalu réew mi. Mhm. nga jël lépp toog te du mujj fenn yooyu aussi vraiment ci dëkk bu mal ndóol bu mal ni Sénégal. Euh, dañ ci war a dañ ci war a jokk donc loolu lépp dañ koy rafetlu. ba nga xam ne désormais parce que aussi euh, les pays développés là mais boo gisee ñu yegg fii boo gisee un élu balaa ngay dégg tey ñu la la élu détourné na en fait euh, un gars koo xam ne dañ ko jox euh, euh, mandat wala peut-être dañ ko fal ci benn benn benn poste public ñu ne la détourné na xaalis boo ko déggee tey balaa nga gisa gisati. Hmm. xaw ma kañ te du góob na ñoom ñoo ñu ëppee valeur mais c'est juste que. l'administration est de telle sorte que mm -hmm. il y a des sanctions. le aussi est permanent donc et imp général et impersonnel. Mm. donc euh, loolu nag aussi la ñuy ñaan aussi suñu dëkk boobu ndóol bi ñu dem ba tendre vers ça ba nga xam ne tey nit bu ñu la dénkee réew mi. Mm. yow sa xel dina xalaat leneen lu dul di ko détourné waaw loolu moom je pense que dañu koy encouragé boo pare aussi également may fàttali ne ñi ñu ngi def ay déclaration de patrimoine à l'entrée euh, avant que ñuy jël service bu ñu leen mm. joxee yenn fonction yi. dañuy aussi demander à que ñi ngi defoon entre déclaration de patrimoine à l'entrée ñu koy def aussi à la sortie. ñu ne am na ñuy dem di defi. waaw bon loolu aussi ku ko deful dañ la war a rappeler ses ses obligations euh, voilà parce que quand même donc euh, loolu la yoon war a war a kii bu ko defee ñu xool ba nga fay dugg li nga am ba nga génnee li nga aussi moom nga am. Mm-hmm. waaw et à tous les niveaux nag waaw yooyu dañ koy encourager te je pense que. voilà nous soutenons nu soutenons le, hmm. vivement le président de la République ci ci dynamique boobu. citoyen bi nga nekk naka la apprécier ni ñu gérer alalu réew mi euh, ci at yi ñu weesu ñëpp ñu ngi dégg ay rapport euh, di euh, gis aussi yenn dossier yoo xam ni dafay nekk de véritable scandale. Hmm. naka nga apprécier gestion deniers publics yi ci ci at yi ñu génn. waaw xam nga gestion deniers publics man en tant que en tant que en tant que républicain. Euh, am na yu ma ci dégg yoo xam ne mu ngi tukkee ci rapportu euh, au corps de contrôle yi maintenant rapport de contrôle rapport de des corps de contrôle day day décrire une situation bien donnée après hmm. euh, étude. justice atte justice in fine. Hmm. ci bureau public moom lañ jàpp ne kat bu la condamné jàpp nañ ne li ñu lay toppee moo ko def. bu la setalee jàpp nañ ne li nga la doon toppee setoo ci. Hmm. waaw man foofu nag laa moom mooy tënk. dégg nañ nag ça et là que am na des détournements ça et là kii am na lii ki am na tel bien que mais loolu la dañu bëgg ñu saytu ko. Mm. xool et puis in bu fekkee ne koo xam ne taxe nga ci aussi. Mm. boo yoon dal sa kaw bu dee aussi seta yoon setal na la aussi ñëpp tënku ci nekkat yow yoon satal na la et que li ñu la doon toppee yëpp dara amu ci koi ok alors beneen coow bu am ci penc bi mooy lu soxal déclaration de politique générale bu euh, premier ministre Ousmane Sonko euh, assemblée nationale di wax problème mu règlement intérieur ay député notamment yu nekk tey ci pouvoir bi